masque di luñ fonk lool ci réewum Sénégal ginnaaw bi ministère bi yor googileeg fànn yëkkatee kàddu yu ni mel askan bi di def seen kemt lay kàttan ci xeex mbas mi ngir jëfe ndigal loolee bu dee nag ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw kàddu yi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati woon ngir jëmale ko ci takku masque mi mu mel ni nag jamono ji taalibe yi yeewoo ci dëkk bu sell bii di Touba ñi ngi jëfee ndigal loolee bu baax askan wi nag di ci joxe seen i xalaat bu dee ci jaaykatu mask yi jamono ji mel na ni seen bamba ma nga cay maasee ndax client yaa ngi gën di ñëw bu ñu sukkandikoo ci kàddu sëriñ bi bokk ci jaaykatu masque yi. man nag jaaykatu laa waaye bin yàlla dogalee corona bi ñëw fi ah, sëriñ bi joxe ndigal ci masque yi ci laa dugg ci masque yi. Ah, wax dëgg yàlla bi ci sëriñ bi joxe ndigal moom ci la liggéey bi gën a gën a dox waaw tey itam masque yi dañ ko doon jëndee 500 léegi ñun ñu koy jaay 200 nga xam ne moo gën a yomb wax dëgg yàlla saa yoon xëyee tamit ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax. tey itam ñu bari bari nag ah, ñu ngi koy jënd ndax ndigal li ñu bari tamit ñu ngi koy jënd ndax jàppe bi di fay trois 3000 ya ngay faye tamit mooy tax ngay jënd masque askan wi ñu ngi takk masque yi moom waaye nag ñi ci bitti ñoo koy gën a takk ñi ci biir marché bi ndax xam na ñoo xam ne buñ takkee masque at buñ egsee ba ci biir bi dañ koy tekk bay ñibbiwaat ndax ñi nga xam si ñooy ramas tamit daanaka duñ dugg ci biir marché bi waaye nag nit ñi moom ñu ngi ciy la ndax ndigalu sëriñ bi sëriñ bi moom lépp lu mu wax rek danañ ci def seen kéemtulaay kattan sëriñ bi moom di xamle ne luñ war a fonk la rawatina bi xalif général des mourides sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké yëkkatee kàddu ndax ab taalibe jëfe ndigal rek moo ko war te it luñ war a gën a yokku la ngir màggal gi ñu dëdmal ma sëñ bi lu sëñ bi moom la ñuy def ndax murid moom xalaatul dara lu sëñ bi ñu sëñ bi sëñ bi suñu waxoon ne bu takk leen masque ñu takk masque su waxee bu leen takk masque duñ takk masque fii moom moom saay boo bëggee dégg dëgg lu sëñ bi wax rek moom la def ñun moom ñun moom defuñu dara lu lu sëñ bi wax te ñun ay murid lan ay taalibe Serigne Touba lan sëriñ bi mel ni ku koy feelu di gën a dëggali kàddoom di xam ne ne euh, mbas mi di Covid 19 mi ngi fi ba léegi euh, te jógee gu fi te takku masque mi euh, bokk na ci li ñuy gën a aax ci doomu jàngoro bi di Covid 19 ak di gën a ñaax askan bi ngir ñu koy takk. amuñu lu dul ndigal sëñ moom bu ne woon yéen fanaanoo mas rek nga fanaanoo rawatina nag ñu nekk ci moment bu doy waar moment bu timide moment bu xaw a raglu ñëpp xam nañ ni bon feebar bi mi ngi fi. waaw ah, comme nag lii moo comme que lañ tànn ba moo koy faj masque yi bon ñu jëm a respecté rek distance un mètre fi di raxas loxo suñuy masque ça fait bien peut être moom dañ a bopp mooy li ñu bi dénk ñun ñëpp rek mooy jëfee ndigal takk masque yi comme que màggal gi mi ngi ñëw te ay gan dañuy ay fekk si ah bu ñëwee rek dañuy fekk daal ñu suñu jël rek kese takk suñu masque kese loolu lañ ci laaj xam du leen ak lu mënti xew askan bi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ngi gën a waaj waajtaay wu dëgër ngir jëmale ko ci takku masque mi ak it di gën a jëfe ndigal li di gën a findeel ne ab taalibe jëfe ndigal rek mooy li ko war